président bu FDS le Guelwaar am mbégte nag am ko ci plateau bi docteur bonsoir. bonsoir Khady maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. maa ngi lay nuyu di la fay. di mhm. nuyu suma xarit Fatou Abdou sama xulóowaale. <laughs> di nuyu sénégalaises ak sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi ñuy bàyyi xel jamono bi. Mhm. Eh, di nuyu waa ñu lay fay bu baax a baax Fatou. nuyu maa ngi lay fayaat encore. di mhm. nuyu aussi docteur Babacar Diop. Euh, di ko dalal ci ci plateau bi docteur Babacar Diop depuis bi mu nekkee ci jeunesse socialiste FDS. <laughs> ba ba tey fi nga xamante ne mooy JDS je pense. oui ba tey FDS. Euh, donc mu nekk koo xam ne également yàgg na ci ëttu politique bi am nañu wecc dalal ko sur le plateau aujourd'hui c'est vrai mu ngoog ñoom la ñuy kon ci waxtaan bi door incha allah léegi léegi. Euh, ñu dooree nag naturellement ak euh, libération yi nga xamante ne ay détenus dits politiques ñuy ko nemmeeku depuis la semaine passée président Macky Sall annoncé woon ko sax pour indiwaat jàmm ak dal ci réew mi rawatina ci espace politique bi euh, boobu ba tey ñu doon xaar docteur euh, ki nga xamante ni moom mooy ministre bi ñu dénk wàllub yoon moom mu àddu ci tey finalement def na ko ban appréciation nga am déjà ci ci génn bi mu def tey. ñaar. Mhm. bi ci jëkk mbégte soulagement. Mhm. évidemment pour euh, xale yooyu seeni njaboot euh, seeni famille seeni yaay trois cent quarante quatre détenus politiques ci diir bu gàtt nga génne leen nga génne def conférence de presse ni ñeneen dina génn mu doon benn demande boo xamante ñiy xeexal démocratie yépp ci réew mi euh, ñiy xeexal ak yelleef doomu aadama yépp waxoon nañ ni ñooñu war nañu génn mais njàqare en même temps njàqare bi mooy kon ñun ndekete ñu dugg suñu kas dugg kaso ñu dugg prison mi ngi dépendre ci Macky ak ñi ko wër mhm. c'est ça qui est extrêmement grave ne dépendre pas du juge mais dépendre de l'exécutif qui fait président Macky Sall lépp mu ngi dépendre ci bakkanam ministre de la justice comme ça qui peut se lever au beau jour wax ni ñii dinañu génn et ni mu ko waxee noonu la amee en même temps ñu génn je pense que ni loolu dafay wane ni suñu institution yi ci boppam war nañ ko tabaxaat ba mu gën a dëgër parce que am na loo xamante ni kenn du ko foowee état de droit ci la suñu sécurité nekk mais état de droit ci la sécurité président Macky Sall nekk parce que dafa aye jeex na ba pare de toute façon day jeex mhm. kon méthode yi mu utiliser pour gouverner ko Sénégal bis bu ñu ko ko appliqué woon ak président Abdoulaye Wade moom fi mu yegsi du fi si mais suba bu jeexalee buñ ko ko appliqué moom ak njabootu politique kon gis nga yeneen yi mu nar a jur comme conséquence ci boppam moo tax yaakaar naa ni ci politique Sénégal dafa nekk ci phase bu intéressant tax Macky Sall dem na ba xam ne méthode yi mu yor muy méthode jaay doole méthode jël constitution jàpp ko kay chiffon xam nga constitution xaddi soo ko jëlee changer constitution moom wax dëgg yàlla sooy wax dëgg Ablaye Wade euh, Macky Sall indiwu mhm. ab di Diouf mënoon na ko trop Ablaye wadd mënoon na ko trop mais différence bi ak ñoom daan nañ mettre forme. Mhm. xam nga dañ naan tailleur dinañ jël ciseau ñoom di jéem a taaye jéem a rafet Macky Sall nag day xotti page bi dëpp parce que lépp jàpp na ni ci bëgg-bëggam la la déclaration de maître Aïssata Tall Sall évidemment on parle de 500 qui vont être libérés dañ koy encourager parce que xale yooyu léeg-léeg boo leen dégloo euh, témoignage yi ñuy def leader politique yi ñuy jàpp yu mel ni nit dof yu mel ni Aliou Sané am kenn gisu leen ñu agressé kenn am taxawaay simplement ci démocratie nga jël leen euh, taqale leen ak seen famille ba mu neex la ci sa coobare bopp kese kese nga xëy xëy libéré leen ci ce ce qui est sûr du mus am procès du mus am dara. ça c'est justement foofu jàpp leen tëj leen amul procès amul amul dara euh, après ñu nekk dañuy bañ euh, terme prisonnier politique bi tey est-ce que xel mën na ko nangu bu ñu nekkul prisonnier politique ay lan lañu. Mm, c'est plus que des prisonniers politiques. Mm-hmm. dañ leen jël en otage maanaam jël nit mu neex la. lu teguwul ci yoon lu teguwul ci droit lu teguwul ci état de droit yow ci sa doole boo yor ci sa bëgg-bëgg ci sa taxawaay parce que yor nga doole état yor nga puissance publique violence boobu nga teg ko ay nit ba mu neex la nga génn leen Macky dafa wax wax bu dangereux bu bu garaaw a garaaw ci état de droit mooy bi ñoom xalifa Sall nekkee kaso ñu ne ko kañ la ñuy génne mu ni ma sa mu wax ni saa su ma neexee bu ma demee ba mu xool ma ni neex na vous vous rendez compte cest à président Macky Sall am na pouvoir yu ko may ku mu bëgg ku mu bëggul nga doo bokk ci élection yi doo bokk ku mu bëgg exiler mu exiler su demee ba àdduna dox mu bëgg nga bokkaat mu dem changer waat loi pour fexe yow nga jéem a bokkaat su la bëggee éliminer mu changer code électoral bi lu toll ni diffamation ci débat politique parce que débat politique ak waxante ñoo ànd ak xuloo ñoo ànd ak polémique ñoo ànd lu toll ni diffamation mën a téye un leader politique nekk candidat c'est extrêmement grave moo tax léegu léeg bi ñu président Macky Sall euh, bàyyil ci wàllu démocratie nasaxal na suñu démocratie dafa am boroom xam-xam bu mag bu mag bu ñuy wax professeur Djibril Samb dafa wax ni leader politique bu jeexal kay mandat moo xam nga jiite une communauté mu nekk président de la république wala ab mairie wala mu ni boo jeexalee nii la ñuy natte kay sa sa mandat boobu ñaar bi ci jiitu mooy mandat bi bi nga ko jeex bi nga ko jiitee mooy xam benn mandat la moo xam ñaari mandat la bi mu jeexee ñi nga jiite woon ndax seen koom yokku na ndax seen man-man yokku na ndax seen jàmm yokk na ndax feeñ na ci seen i njaboot ndax feeñ na ci seen famille ndax feeñ na ci seen i dund mooy première question bi. Mhm. mu ni deuxième question bi yow mi jiite woon ci say doxalin ci say wax ci say jëfin ci sa attitude est-ce que dimbali nga sa askan ñu gën a daw jëm ci mbaax ci vertu. Mhm. ñaar yëpp soo ko xoolee xam ni président Macky Sall kayam gii mënoon naa neex. Mhm. demoon na bay neex. waaye mu jël kin li lépp këpp ko. ndax lépp. teg ko ci jaay eh, eh, doole eh, ak manque de culture ci contexte bi euh, li ñuy dégg mooy décrispation de l' espace public et tout à l'heure euh, madame Aïssata Tall Sall nee na décrispation de l' espace social sax la ko dippee moom lan moo mën a expliquer ci moment bi ñuy wax décrispation alors que tolloon nañ ci ay moment yoo xam ne euh, crise bi gënoon na gënoon na fës oui décrispation évidemment ñëpp a koy encouragé ñëpp ci d' mais teewul aussi waxante dëgg kër bu yëngu woon bañ nañ woote pour kër gi dalaat mais dañuy waxante dëgg dañ koy teg ci dëgg. Mhm. mais décrispation mais boo mbëkkee mur nooy def. ah oui jàpp ne il est dos raw na foofu Macky Sall dafa dem ba mbëkk mur ca moo ko yóbbee boppam li ko ko yoddee lu dul dara mooy li ma wax politique gu jàll parce que Macky Sall dafa teg benn logique politique depuis bi mu jël nguur gi. logique politique bi mu teg teg ko ci culture de la violence culture de la domination culture man maa yor nguur kon lépp lu ma bëgg war naa ko mën a def lépp lu ma bëgg a dogal mais booba ba léegi mi ngi xotti di dem rek comme ndaraan bu bu saaraan di daw rek mais day daw di daw di daw di daw ba nga xamante ne am na ci lu mu dal bu dalee ci loola nag lu ko ëpp doole dina taxaw François Mitterrand dafa wax lu am solo daf ni un dictateur n'a pas de concurrent à sa mesure tant que le peuple ne relève pas le défi Macky Sall dafa daw a daw a daw ba dal ci mbër mu toll ni askan peuple muy doog a taxaw. alors muy doog a taxaw maintenant ci taxaw bi ci la wootee dialogue et pourtant yow bu ñu la déggee maanaam d'accord nga ci dialogue donc yow da ngay d'accord ci koo xamante ne bu jekkoo maanaam day dem jusqu'au bout ak askanam. Mm-hmm. bu fekkee il est dos au mur mu daat ne kaay leen ñu waxtaan et docteur Babacar Diop de dialoguer avec avec ce président de la République. mais Fatou kaay leen ñu waxtaan dinaa ñëw ci waxtaan bi du tee ñu waxante dëgg mais ku dialogué wul nooy def. période bi lan ngeen di waxante dëgg période bi. mais li période dem la. oui mais ñu réew mi waxtaane institution yi waxtaane élection yooyu nan lañ ciy demee. mais moom bokkul le deux lay pare. mais di wax ak moom. jusqu'au moment où on parle moom moo jiite réew mi mooy président de la république du Sénégal politique waxuma la sax politique àdduna yépp nag laa la wax mbir ba tolloo fenn day dellu ci xel yi yàlla sax buy wax ci alxuraan di wax di wax di wax dana boroom xel yi lay wax fi mu toll nii xel yi ñoo war a wax mbir mi du président Macky Sall mbir mi askanu Sénégal la ak suñu démocratie li ñu mën a sauver mën ko tabaxaat ci dal ci jàmm gunge ko mu dem ngelawam nangu xam nga lu tax ay la yeween Macky Sall a été président de la République Sénégal pendant douze ans mhm. ay la yeween représenté na Sénégal kon institution boobu waxuma Macky Sall de mais institution bi dañ ko war a protéger dimbali ko mu am une sortie honorable loolu mooy sama position par rapport parce que xaawi sutura Macky Sall yëkkatiwul Sénégal oui mais est-ce que il s'agit de xaawi sutura cest à boo xam ne Sénégal daf ko jox lépp mu war a tàggatoo ak sénégalais yi le 2 avril 2024 war a tënku ci charte yi war a tënku ci texte yi war a tënku ci constitution yi est-ce que kooku aujourd'hui war nañu ne dañ ko war a gunge dañ ko war a neexal dañ dañ ko war a dañ ko war a wormaal est-ce que du aujourd'hui c'est parce que docteur Babacar Diop dañu ko recalé <laughs> ca recalé yu njëkk yi mu bëgg la reprise du processus électoral moom moo tax mu changé tey tactique changé gis-gis jàpp ne euh, dañu war a wormal le président il faut dialoguer. Macky Sall ku ñuy dimbali la. est-ce que du sax bopp nga bëgg a dimbali Babacar. man may constance ci politique ci Sénégal bu amee bu constance amee man maay constance sama intéret tekkiwul dara. ci kanamu askanu Sénégal xeex ak xuloo lan la mën a jur ay bakkan wadd ñaata bakkan wadd depuis deux mille vingt et un presque trente familles endeuillées France ni daal di xëddeen yaay yooyu ku leen di jooyle baay yooyu ku leen di jooyle te loolu tey nga ko xam parce que woote nañ fi dialogue bokk nga ci ñi génne communiqué ne yow doo dem tontu ji dialogue boobu et pourtant dialogue boobu bëri na lu ngeen fa mënoon a waxtaanee parrainage bi ci la ñu jël dogal ba wàññi ko muy benn bénéfice mais fichier électoral bi nga xam ne dañu ko dem bëtal ko ba après élection yi ñu door ko ñu door ko mën a waxtaane wat alors ko ci dialogue boobu xëy na yow boo fa teewoon di nga exiger pour jot ci lan moo différencier dialogue dialogue boobu ak dialogue bi tey contexte ah mhm. Sénégal nekk li ñuy dund nii nekk ci guute gi président de la république bu jeexal aye war a fegal lànk te njël li nii da ngaa bëgg a continuer ñi bàyyi lànk njël li situation bii ñu ngi koy doog a am. buñ ko ñu ngi koy doog a am mu jël ay député instrumentaliser leen accuser ñi accuser ay juge conseil constitutionnel dugg accuser leen corruption kan moo leen corrompre. le premier <laughs> ministre de la république du Sénégal dem assemblée nationale yokkal président de la république dem conseil constitutionnel conseil constitutionnel rejeté loolu ñu waroon a dem élection le vingt cinq mënuñu dem élection mhm. kenn xamul datu élection yooyu lu ne mënoon a am ci réew mi ñëpp tiit violence même président Macky Sall wax na ci communication am na yeneen force yu ñu bokkal jeu bi ba ñëpp am ñuy xalaat force de sécurité situation boobu la Sénégal nekk loolu moo changé loolu mooy la nouvelle donne contexte boobu musuñu koo am contexte boobu nag bu ñu ci nekkee Sénégal daf ñu war a gënal bëggal lépp man waxuma problème mu recalé parce que je ne suis pas un recalé je suis à l'aise vous êtes quoi un candidat très sérieux ko a éliminé ah oui de manière arbitraire mais loolu amul solo aujourd'hui parce que sénégalais yi du Babacar Diop xam nga lu nekk en jeu. pourquoi de manière arbitraire. conseil constitutionnel boo xam ni dañoo faa nekk ak seen informaticien soo ñëwee la mandataire du ñu la sax déglu cest di Sénégal amuñu courtoisie un mandataire national qui représente un candidat amuñu courtoisie déglu. mandataire bi am possibilité jël parole des gens yoo xam mel ni ay ay ndax y' a trop y' à dire dans sur ce conseil ce conseil conseil le contexte qui fait. Ah oui et un informaticien peut se permettre jël clem dugal comme ay analyse malade invalidé ça sans aucune explication comme ça en démocratie état de droit nit xam nañ lan mooy parrainage. complexité bi nekk ci parrainage ay force politique organisé wu ak seen xaalis nekk ci àll bi di def ay tournée sociologique bi bi ci nekk toutes ces difficultés la benn informaticien toog boo xamante ne ma nga toog fële nga ñëw mu jël dugal clé on vous mel ni ku dem hôpital ñu jël ay ay analyse joxe ñu résultat yi génn ñu jox la nga daal di dem sans aucune explication loolu du démocratie alors loolu du état de droit et il est temps que ce conseil constitutionnel là ñu wax ak ñoom mais loolu lépp dañ koy dugal ci nan la ñuy tabaxaat suñu suñu suñu suñu démocratie man loolu moom ma amal solo. ndax tabaxaat suñu institution yooyu. Mhm. ci la suñu sécurité nekk ci la sécurité président Macky Sall na. d'accord alors euh, ci ci ci li nga tuddu léegi ñu ci bari ñu ñi dund li ñu jàppee injustice comme ni nga ko waxee léegi euh, ñoom dañu prôné à que ñu reprendraat processus bi am ñeneen ñoo xamante ne ñoom li ñu bëgg mooy ñu gaawantu organiser élection avant le le 2 avril tey ci ban camp nga bokk. il y a je m'adresse aux au et je veux que nit ñi comprendre bu baax may wax. Hmm. le premier temps mooy temps bi ñu def ñu éliminer ay candidats yu mag yoo xam ne ñoom ñooy animer pourtant la vie politique sénégalaise loo Sénégalais yi ni buggaan mënta matal parrainage loolu loolu loolu loolu loolu ay caaxaan la. man nga ni mën mën na bañ a gagner présidentielle ban score lay am pour le débat. Mm-hmm. gëmloo sénégalais yi ni docteur Abdourahmane mënul am parrainage loolu ay caaxaan la gëmloo sénégalais yi ñu Babacar Diop mënul am parrainage loolu ay caaxaan la nañ waxante dëgg mhm. ce qui anime la vie politique tabax ay mouvement tabax ay parti di dem ay tournée di animer la vie politique ñooñu ñu éliminer leen de manière arbitraire démocratie c'est c'est le jeu des partis politiques mhm. la démocratie c'est le jeu des partis politiques ñoom ñu ñoom ñu ñoom ñu éliminer mais bi ñu nee éliminer man ci réunion euh, li ñuy tuddee les recalés la j'aime pas euh, ñi bi ko woo ci la bokk. les spoliés bokk ñu tuddee ci donc j'étais là-bas ak suñu mandataire bi ñu fi représenté je sais que de l'intérieur en public en privé la position de FDS a été il faut toujours respecter le calendrier républicain bi ma demee réunion F24 aussi ça a été ma position il faut respecter le le calendrier républicain mais Macky Sall le calendrier républicain jour bi campagne bi waree tàmbali. mu perturber ko aujourd'hui de fait on n'est plus dans le calendrier républicain perturber na ko nee na day dialoguer mais dialoguer pendant que nous y sommes mais dialoguons man su fekkee y a deux xalaat la rek la suñu xalaat la. bu fekkee nii jàpp nañu aussi processus bi fi ne nañ dem jusqu'au bout y a aucun problème mais processus bi soo ci demee jusqu'au bout day bàyyi ay jafe-jafe parce que dafa am ay mbër yu nekk ci ci langue politique ñoom ñoo animer la vie politique mu neex nag leerul nag docteur mu ni ma ne doo analyste li yow sa position la ñu wax fu mm-hmm. pouvez pas couper la euh, kii la poire en deux mm-hmm. non non non j'ai dit premier temps bi FDS lay gelluwaa aujourd'hui ndax li Khady wax leer na dafa bëgg ñu reprendre le processus électoral wala que ñu dem élection dans les meilleurs délais. boo dégloo rek di nga dégg. il fallait que le premier temps ma expliqué ko ni foofu on était cohérent jusqu'au bout. oui mais aujourd'hui mm. situation bi ñu nekk bu fekkee dañu bëgg retrouver une situation une vie politique normal force politique yi war a bokk dañu leen war a bàyyi ñu bokk xam nga lu tax. pour dire quoi. pour dire qu'on reprend qu'on reprenne le processus. oui oui oui Karim Wade dafa war a mën a bokk dans le jeu politique ñu xam lan la pesé. Ousmane sonk dafa war a bokk ñu xam lan la pesé bu ko Sénégalais yi ñu fal ko bu ko Sénégalais yi wóoluwul mais nit ñi am jàmm Abdourahmane Diouf dafa war a bokk Bougane géey dafa war a bokk. mais bu boobaa ak faire dañu jàll ba pare. mais ñi ci ñi jàll dañoo war a bokk war nañ mën bokk xam nga problème bi du ñuy jàll problème bi mooy ñi ñu ñi ñu ñi ñu recalé ca mu wóor la ni yow une élection avec ou sans Ousmane Sonko. c'est pas la même chose. donc docteur donc docteur Babacar Diop était sur les principes les fondamentaux légaliste moom day jël conseil constitutionnel li mu wax moom mu teg ko fële après nañu dem ñu waxtaan pour que toutes ces personnes yi nga cité ñu bokk ci élection présidentielle yi. moi je ne je ne fais pas du juridisme. Hmm. je suis un acteur politique. je suis un homme politique et un philosophe. constant wax nga ko tout à l'heure donc am na ci constant bien dans ma logique. Hmm. sama logique mooy lan moo mën a dooleel démocratie Sénégal tey ji ñu retrouver une démocratie pluraliste ñu retrouver une vie démocratique normal avec force politique yi war a bokk yépp yépp yépp bokk et le dernier mot prévenir au oh, peuple maintenant am solo tey jii su Ousmane bokkul Karim Wade bokkul Bougane bokkul Kanin bokkul dans cinq président bi ñëw bu ñëwee première préoccupation mooy lan mooy defaat beneen dialogue parce que tôt ou tard Ousmane Sonko va revenir dans le jeu tôt ou tard Karim Wade va dans le jeu mais autant les maintenir maintenant dans le jeu et le peuple arbitrer conflit bi fi nekk. Sénégal mais mais le dialogue doit être permanent mais aujourd'hui euh, même kii ñëwaat dafa mën na dialoguer beneen bi mooy euh, lan la ñuy def la date du 2 avril. la légalité et la légitimité du président de la République. foofu quand même dafay poser poser oui. pertinente Macky Sall fégal na le 2 mhm. avril. nous sommes gouvernés par une constitution. Le 2 avril, Macky Sall doit démissionner. Le président de l'Assemblée nationale entrer en jeu organiser de nouvelles élections consensuelles ñu dépasser la crise définitivement dugg dans une nouvelle phase politique ku sénégalais yi wóolu. kon jàpp nga ne li di wax que ne mën nañ def élection présidentielle le 3. wala 10 mars yow date boobu moom mënuñu ko ci def parce que il faut qu'on dialogue d'abord et puis choisir une autre date donc vous êtes comme le président de la Macky Sall bi proposé woon la date du 15 décembre. vous pouvez pas non ndax da nga am gis-gis je veux dire. <laughs> comme Macky bi waxoon président daf que ne. nañ dem le décembre soxla wu ñu le décembre. su ñu amee un dialogue. vous proposez ban date ngay proposer. non je ne peux pas du ma technicien ministère de l' parce que li am solo mooy. lañu waxtaan politique ñi wax kenn ku ci ne say date. wa non man man nag amaguma ab date nag <laughs> na fi benn théâtre bu ne bu ay ku nekk yaa ngi wax bon man donc amul solo man li am solo. je dis su fekkee situation bi nga xam ne kenn xaaru ko woon xam nga c' est une situation inédite. Mm-hmm. kenn xaaru ko woon. situation bi dab nañu bu fekkee mën na nekk occasion bu mën a jur sénégalais yi toog ñu mën a waxtaan ñu mën a d'accord ci loo xamante ni dina mën a indi situation vie politique bu normal foofu on gagne du temps ka nga fal un président mu ñëwaat war gàdduwaat dossier FC 25 d' accord ñu ci. non nee nañu dañuy euh, ñeneen également di ay waa société civile comme tout à l'heure mais duñ Sénégal bind nañu benn lettre adressé ko est ce que tey loolu ngeen bëgg yéen mën ngeen mën ngeen ko am aujourd'hui ce large consensus. mën na sut la constitution du Sénégal ba ngeen war a mën a yegg ci dialoguer choisir une date bu jéggi le 2 comme ni ko waxee tout à l'heure dialogue rek la ñu wax waxtaan ku nekk rek am na noo gisee mbiri man ce que je dis là c'est pas la bible mais yaakaar naa ni des gens de bonne volonté ñi nga xam ni Sénégal rek leen ñor muy ñoo ñooñu nga wax muy société civile tous je pense que intelligence bi fa nekk ak patriotisme bi fa nekk ak bonne fois bi fa ne yaakaar naa ni ak lu mu ci mënti doon war nañ mën a am issue boo xamante bu ñu ci génnee dina gën a dëgëral suñu démocratie ak ñi nga xamante ni dañ leen a xañ seen àq dañ leen a écarté du jeu politique ils c'est des victimes dañu waxante dëgg. mais tey conseil constitutionnel génne na liste bu bees ginnaaw bu mu constaté euh, décision bu di nii ndax loolu prouvé wul que moom mu ngi ci logique am ne liste boobu ñu jàppoon moom moo war a dem. non y' a problème bu fekkee loolu la ñu war a continuer ñu continuer ci. yéen daal loo am jël. loolu la j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça. mais am na loo mën am na loo mënul. ci débat la ñu toll waxtaan. lañ wax débat boobu am nañ ci suñu xalaat am nañ ci suñu position ñu wax ci suñu xalaat ñu wax ci suñu position le dernier mot ne nous revient pas mais am nañu droit ñu wax lu ñu xalaat par rapport à ça dañu war a dem élection mais su fekkee processus bi force politique yi war a bokk wala personnalité politique yi war a bokk mu permettre au peuple sénégalais mu arbitrer xam nga conflit bi fi ne sénégalais yi ñu bëri dee ci ay projet politique dal di ci mbëkkante ay leader yow waxuloo woon boobu bañ la recalé moom da nga jàppoon sa njàmbur. non eh, eh, peut-être yaa ngi woon ci les recalés mais coow li mais daf mel ne da ngeen indi porox ndoll bi da ngeen cee bëgg a profité yéen aussi bañ ma bañ ma éliminer waxuma man bañ ma éliminer le soir même j'ai j'ai mais mais maanaam agitation bi nii mais mais agita il faut être responsable parce que éliminer nañ la donc euh, donc yéen da ngeen a profité ci prof ndollu PDS bi yéen également pour mm. bëgg. kan mooy propre pro. mais euh, yow ku ci mel ne yow ku ci mel ne le collectif. parce que boo nee da bëgg wax nga li nga wax leer na dégg nañu également ku ci mel ne je pense moom Mamadou Diop de Croix entre autres yu jàpp ne ñu ci bari que dañu war a reprendre le processus vous avez profi vous ci événement kii bi euh, li am ci contexte bi pour que ñu delluwaat ginnaaw sur le processus électoral alors que les décisions du conseil constitutionnel s'imposent la ñu wax. parce que kon comprendre <laughs> donc la logique de ma pensée man traité wu ma PDS traité wu ma prox ndoolu PDS traité wu ma waxu kaneen sama wax la traité position FDS les Galawaar ñeme ko assumer par rapport à position publique j'ai bu fekkee dañ ne dañuy waxtaan laa la wax bu fekkee waxtaan wi mën na gën a xóot suñu démocratie man d'accord nga ni mal malmené nañ ko d'accord nga ci ni bari na lu arbitraire. oui y a beaucoup de quoi. y a d'injustice. su fekkee waxtaan boobu mën na xóot ba mu inclusif xam li ma ci important mooy que le peuple sénégalais puisse arbitrer. les différents politiques yi fi nekk yoo xam ni peuple rek moo ko mën a arbitrer loolu suñu xalaat la n'empêche amul problème si on doit y aller sur l'autre logique jusqu'au bout mais ñi dem élection li am solo mooy Macky Sall moom jeexal justement loolu laa bëggoon wax bu fekkee dem nañu élection avant le 2 que dialogue boobu naam ñu ngi koy laam-laamee ba certaines dat sax ñu ngi ko commencé euh, di ko di ko annoncé peut-être que dinañ ci gën a am lu lu ci gën a leer mais su fekkee ne loolu antuwul ñu dem élection lan mooy nekk sa position euh, sama position mooy les candidats yi yi jàllagul euh, les plus représentatifs ñoo nañ seet si ma à Thiès mhm. muy Khalifa Ababacar Sall di Malick Gakou di président Aliou Mamadou Dia euh, di Thierno Alassane Sall euh, di délégation Bassirou Bassirou Bassirou Diomaye Diomaye Diomaye Faye je pense candidat yooyu yëpp di président Idriss donc ñun FDS les Guelwaar def nañ conférence nationale sur la question am na liggéey bu ñuy ci santoon ñu jox mandat au parti su mag président Macky Sall arrêté arrêté date bi incha allah FDS les galawaar ñi nga xam ni méngoo nañu ak ñun gis-gis ci ñu jàpp ni mën nañu liggéey ensemble. moo ñëwal boppam Idrissa Seck moom da ngeen séparé bi mu demee rejoindre Macky Sall donc est-ce que kooku mën nañu xaar Babacar Diop dem dem rejoindre la coalition de Idi. Euh, Idrissa Souma Babacar Constance la ba woote de. Idrissa suma mag la. Hmm. waaw c'est un grand Thiès waa suma mag la mu def lu bëri Thiès euh, parce que je suis maire je suis très bien placé xam lu Idrissa liggéey biir Thiès mais yaakaar naa ni il a fait des erreurs politiques yoo xamante ni. et choix politique yoo xamante ni jàppoon naa ni du góom góoma woon ni mooy yi gënoon yi waroon a def. surtout dem bokk bokkul warta bokk ci say choix alors. waxuma lool de. terminé. donc man waxuma lool de donc dama ni jàppoon naa ni taxawaay bi nga xamante ni Idriss ak réew mi buñ ko amoon jàppoon naa ni heure bi kon situation bi réew mi nekk peut-être du nekke nii wala configuration politique bi ñu nekk nii euh, du du du am surtout. ñi dem élection présidentielle. Mhm. yàlla consacré le leader de l'opposition nga jël élection présidentielle bi nga jël deuxième loolu lu la askan jox la loolu c'était suffisant nga téye ci loolu loo ci dolli jël le pouvoir politique il a il d'autres positions bon c'est son droit le plus absolu. moom doo ànd ak moom. Mhm. ah sa dépend rek le parti est souverain. ça voudrait dire que yow itam da ngeen a jël ay choix yu baaxul dem fekk ji non waxuñu waxuñu lool de j'analyse que ni moom moo ni yàgg Idrissa da ngeen séparé wu donc je voulais revenir ci un peu sur sur loolu. non man dama dama dama taxaw ci point bi nga nekk dafa def ay choix yu baaxul donc je me dis que puisque jàpp nga ni ay choix wam baaxul yow doo def choix bu bon ci ci dem di ko fekk ci. ah le moment venu on prendra nos responsabilités et dinañ wax ak sénégalais lan mooy suñu choix. très bien. mais mais mais souvent aussi ngeen teg ko ci ay circonstances ànd bi parce que bu fekkee li nga wax nii ci nga tënku docteur Babacar Diop Idrissa Seck moom warta bokk ci say choix loolu mooy dëgg. maintenant ñeneen ñi ci des aujourd'hui ban moo gën a jege su fekkee bien sûr élection yi comme ni ñu ko yamalee ci les 19 listes foofu la ñu ko yamale que ne docteur Babacar job dina dem ànd ak cette coalition. non xam nga ànd ak coalition force et faiblesse la. Mhm. choix bu baax bi moom mooy FDS les Galawaar. boobu mooy choix bu baax bi donc <laughs> bokkul ci élection yi donc kaneen koo mënti àngal force et faiblesse la noonu ma la analyser Idrissa Seck mënoon naa la analyser tous les autres candidats force et faiblesse la donc maintenant par rapport ak ñun suñu aspiration par rapport ak suñu projet par rapport ak candidats yi nga xamante ni nangu nañ ñëwaat yu projet parce que projet rek moo ñu mën a tënk ak un candidat du poste la ñuy séentu. aujourd'hui leneen li moom mooy euh, waxtaan bi ñuy wax wala boog les intermédiaires euh, ci mbiru Ousmane Sonko parce que dégg nañu ñoom intermédiaires ci boppam ñoom ñoo waxal seen bopp et loolu indi na peut-être ci premier sujet bi décrispation de l'espace public mais euh, boo déggee loolu yow en tant qu'acteur politique. nekkoon ci yeewi askan wi je pense oui nekkoon ci yeewi askan après xaajaloo ak waaye yeewi génn yeewi moom génn nga ci parce que vous n'êtes plus actif participer too ci réunion yi bokkatoo ci maintenant boo gisee loolu aujourd'hui entre Ousmane Sonko et le président Macky Sall ban lecture moom nga ci am non li ma la waxoon sànq rek lay ñëwaat gis nga àdduna am na foo xam boo tolloo mbir yi day dellu ci xel yi xel xel moo war a gouverner xel dañ koy teg ci xel kenn du ko teg ci xët kenn du ko teg ci passion kenn du ko teg ci déedéet dañ koy teg ci xel. xel parce que dañ ko tegoon ci xët-xët. ah oui évidemment Ousmane Sonko wala président Macky Sall. Oh, man nekkuma fi jugement de valeur. man hmm. condamné wu ma kenn jugé wu ma kenn man li ma li ma regardé mooy samay position ñeme ko. jugé kenn maay kan ba war a mën a jugé action keneen lenn moo mën a am ma d' accord ak yow ñu ànd ci dem d' accorduñ ci nga dem dox saw yoon ci su ma waree jël samay responsabilité xam naa nu koy jëlee dépendre ma ci kenn ñoom sax xam nañ ko bu baax a mais aujourd'hui qu'est-ce que le Sénégal va gagner ci confrontation Sonko Ousmane Ousmane Sonko Macky Sall Macky Sall de façon jeexal na. constance ci Sonko. Hmm? une fois de plus euh, man je ne suis pas de du ma leen jéemal justifier mais mën naa am sama position mënu ma ne d'accord naa pour dialogue ba pare du ma nangul Ousmane Sonko mu dem dialogue mhm. ah, mais il faut bu ma ko mënee nangul sama bopp dialogue bi passé dama ne woon du ma dem mais tey suma président Macky Sall woowoon dama koy wax sama xalaat ci réew mi mhm. su wootee su ma jotee terme de référence yi danaa fa dem wala FDS dina fa yónnee ñu wax ko suñu xalaat mm. mais mënuma nangu lool ba pare duma ko nangul Pastef du ma ko nangul Ousmane Sonko mais je pense que je dois être cohérent quand même. mais mais aujourd'hui nag nga gisee aujourd'hui euh, loolu ñuy waxtaanee parce que certains acteurs ku ci mel ne xalifa Sall moom xaw na koo brosse comme si il y a un deal entre le président Macky Sall et Ousmane Sonko et loolu moom moo tax mu jàpp dañu war a duut baaraam sur les eh, libérations politiques. est yeewi laa nekkoon lu bari fekk na ma fa lu bari xam naa ko. Mhm. donc yooyu débat moom du ma ci dugg <laughs> li ma gàddu doy na ma sëkk diggante Sonko ak Khalifa Sall ak ay Pastef ak Khalifa yàlla loolu. loo loolu moo. mais mais accusations yi entre les politiques également ah. acteurs politiques nga Babacar. yaa ngi ci biir. aar Sénégal gis nañu élection législative leen Ousmane Sonko lu ma engagé. bi Ousmane Sonko bi mu demee dialogue même yéen ñi dem li demul dialogue wax ne demu leen dialogue ñi dem dialogue dégg nañu fi lu nekk. man dégg nga ma lool. non pas pas yow. spécifique gis quand on xalifa écarté Khalifa ci mhm. Yewwi j'ai dit que ni ce qui l'ont écarté teguñu ko ci éthique teguñu ko ci morale ñu ko ci respect te texte yi Yewwi su ma sañoon ni Khalifa Sall bokk na ci ñi ma écarté Yewwi. ah que moom comment naka la la bokk na ci laa wax. bokk na ci naka la ci bokkee. moo daan la personne morale moment bi ñu may écarte kan moo dirigé woon Yewwi mais kon su ma yëgoon ni même logique boobu la mais garaawul mais parce que Khalifa Sall am na droit dem dialogue. mais mais lan nga def aussi ba ñu xëy rek écarté la ci yeewi askan wi débat dama ne Khalifa Sall am na droit dem dialogue ñu xëy rek noonu jël décision même si c'est la personne may waxal xam nañ. mais ñun xamuñu téléspectateurs yi non non plus. Ah, ah, mais leader Yewwi yëpp da xam nañ. Mhm. qu'est-ce qui s'est passé. je dis leader Yewwi yëpp xam nañ loolu duma ci ñëwaat c'est derrière li am solo dama ne xalifa Sall am na droit dem dialoguer su fekkee jàpp nañ loolu mooy position xam man souveraineté parti dama leen ko nangu cette intolérance là ki fekkee sa position rek moo baax. wala li sa leader wax rek moo wax dund foofu moom moo tax sa leader li mu wax rek moo baax mais il faut ñu libérer nit ñi may affaire nit ñi bu Khalifa Sall bëggee dialogue ji na dem dialogue ji waaw mais boo nekkee ci kuréel tamit da ngay tënku ci kuréel googu eh. mënoo la jël ay décision yoo xam ne bokkul ak décision kuréel gi man nag kenn moom damaa exister avant dafa am ay charte ban buñ doon xool charte yi yeewi ñi ak esprit yeewi ak principe yi gouverner yeewi maire wala leader politique bi ko gën a rapproché wu bu ñëwoon nañ def enquête ci ñi nga xam dañu fallu ci turu yeewi ci ci seen doxalin mu gën a méngoo ak principe kon mën na maa candidati di jàpp ni naan dinaa ci bokk. mais li ma ci waxoon ci mboo mbir moomu yeewi ay principe moo ko tënkoon ay charte ñu xotti principe ya xotti charte ya ngir seen i bëgg-bëggi parti politique wéy ba tey loolu moo ko yow yaa fa nekkatul Ababacar oh Yewwi c'est c'est une vieille histoire ah nañ jàll ci leneen no mais mi ngi am ba tey la wax c'est-à-dire que jusqu'à présent ñu ngi te tenir ay réunion kan mooy bu ñu amee kan mais Habib Sy mi ngi fa. nañ jàll ci ñi nekk waa Pastef ñi ngi fa Maimouna may wax ay wax yoo xamante ni tolluñu foofu. mais mi ngi fa en fait je veux dire que oui. parce que Yewwi boobu foofu laay waxee les circonstances c'est-à-dire que aujourd'hui situation bi bu arrangé benn leader ñenn ñi jàpp ne dafay deal et que de l'autre côté bu leen arrangé ñeneen ñi également tuumal leenoon. est-ce que loolu dina tax way politique bi aujourd'hui Sénégal. ñu jox ko cëram mais également gëm ko gëm bi nga xamante ne moom lañ ko war a oh, ci ay deal ne parlerai jamais de deal man mënuma gëm ni Khalifa Sall dafa deal wala Karim Wade dafay deal go mënuma gëm lool. Mm. li ma man gëm mooy président Macky Sall woote na dialogue am nañ ay seeni raison pour dem jaloog ba dama manière souveraine dem nañ dialogue ba loolu dañ leen ko war a nangul. man loolu laa gëm loolu noonu sama position mooy sama position tey donc euh, maintenant parti dañu am seen trajectoire am seen i personnalité hmm. loolu dañ koy nag mënuñu d'accord parce que bokkuñu fu ñu jógee bokkuñu fu ñu jëm bokkuñu lu ñu bëgg hmm. donc ay concurrent lañ nañ ko wax loolu mooy dëgg donc la vérité donc c'est normal am ñu gisee nii tey am ñu gisee nii selon leurs intérêts ku ci nekk intérêt yi nga am position ya nga amoon démb loolu c'est la vie politique mooy doxee noonu donc loolu c'est c'est très très bien alors euh, waxtu bi ñu bu ñu cërale woon dab nañu euh, docteur merci ñu ñu ñu bàyyi la nga nga tàggatoo ak téléspectateurs yi peut-être un mot pour de la fin. waaw bon. Euh, beneen yoon moom dinañ wax ci cees ah man de yaakaaroon naa na lu ñu war a ci Thiès. <laughs> yaakaaroon nañ di wax ci Thiès donc ñaan rek dal dellu si waat ci réew mi. jàmm dellu waat ci réew mi mais dal googu jàmm jooju mënuñu ko suuxat ci lu dul état de droit. mënuñu ko suuxat lu dul ci dëgg mënuñu ko suuxat lu dul ci mandute mhm. parce que état de droit boobu ci la suñu sécurité nekk ci la sécurité ñi nekk ci prison bi ne ci la sécurité ñi nekk exil ne mais ci la sécurité Macky Sall ak famille politique am aussi nekk merci beaucoup Fatou merci. merci Khady ba suba incha allah. Euh, ba ginnaaw suba donc quatre-vingt-dix minutes chrono incha allah <laughs> voilà chers téléspectateurs euh, merci beaucoup merci de nous avoir suivis.